asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum mbokki àdduna yëpp asalaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki Diourbel mbokki Mbàkke mbokki Touba waaye mbokki eh, Louga mbokki Kébémer ba ci fii mbokki waa maanaam Daaru Mannaan Serigne Cheikh Awa Balla waaye mbokki eh, Mbàkke Kajoor moom Serigne Mbàkke Kajoor fii ñu jàkkaarloo nuyu fii mooy résidence Serigne Mbàkke Kajoor fii le Serigne Mbàkke Kajoor dëkkoon. bi ko fi sëñ Tuubaa indi ci dëkk bi fii la ko dëkkaloon mu nekkoon bi bàyyi fi woon lii nag mel na ni ci ginnaaw lañ ko yeesaloon def ko bërëb mucc ayib macha allah dalukaay ak muy dalu maanaam sëriñ bi fi nga xamante ni mooy sëñ Mbàkke Kajoor ku fi mën a nekkal ku ne rek waaw moo nekk nii waaye nag mu jàkkaarloog bërëb bu am solo mi ngi fii ci penc mi gis ngeen ko mu ngi ci pencu Mbàkke gu mag Mbàkke Kajoor gu mag fii mooy Mbàkke gu njëkk gi fii la sëriñ bi nekkoon indi sëñ Mbàkke Kajoor waaye moom nekk fee ci maanaam soow bi ci néeg bi nga xamante ni fa la nekkoon dañ fa jàngale maanaam di wéttali way jërëm fii ci dëkk bi sëñ Mamour Anta Sali te mu nekkee woon fee ci ngi gis Bamba fa la daara ja nekkoon muy jàngale di jóge fii ci kër gi dinam foofu jàngale waaye di ñëw fii ci bërëb bu tedd bi ñu jàkkaarloo muy masjid bi di fi jullee fii sëñ moo ko rëdloon boppam ci tànki boppam di fi jullee waxtu juróom yi maam bi fi jugee nag na ko sëñ Abibu moom sëriñ Ibrahima Mbacke Kajoor yeesalaat def ko nii tabax ko kon penc maa ngi nii waaye it bërëb am solo bi muy jàkkaar lool muy euh, kàdd gi fii la Lat Joor fekkoon sëñ Tuubaa maam wax ko lim koy wax digganteem na salaan si sëñ bi wax ko lim koy wax waaye it ñaanal ko dénk ko Lat Joor ko li nga wax lépp xam naa ne mun nga ko waaye sama kàddu maa xasa jiitu ba noppi ñëpp ne ma man la ba mënatuma wax du man waaw kon nag fii la ko sëñ bi fekkoon fii la fekkoon sëñ bi Euh, ci garab gi moom lañ ko warmaalee nii gis ngeen sëñ bi moom jeexle tam rek moom soo ko gisee rek xam ne fii sëñ bi jaaroon na fa ndax day mujj am jeexil bu am solo bu am barke macha allah kon nag garab gaa ngi nii fii la ko sëñ bi ñaanalee woon yëkkati mbubbam jox ko waaye nag euh, boobu fekk na sunu borom moom it euh, namm na li muy namm dogal li muy dogal waaw la jot ne woon ko sëñ bi li nga wax yëpp mun xam naa ne mun nga ko waaye nag damaa xasa joxe sama kàddu ba noppi kon nag ñu ngi ñaan suñu borom defal ñu ci barke bërëb bu tedd bii képp koo xamante sunu borom maanaam defal na la tawfeex rek nga dégg ndigal maanaam yàlla na ko jëfee ndax ndigal mooy faj ajo waaw mooy faj aajo kon maanaam yàlla na ci moom defal ñu wax dégg topp ci barke bërëb bu tedd bi waaw ndax euh, lajjar bu toppoon ndigalu sëriñ bi dégg ko maanaam bañ a topp maanaam loolu mu jàppoon yàlla mun naa dogal kon mu mucc ba mën naa dem ba fi mu nekk ba léegi ñu koy e, maanaam dégg ci beneen anam bi gën a jàppandi kon nag ñu ngi koy barkeel di ko dëgtal ñëpp e, jàkka ji nag moo nekk nii fi la sëñ bi daan jullee waxtu juróom yëpp maanaam moo ko duloon si tànk boppam di si jullee ci waaw kon bërëb baa ngi nii ñuy ñaan suñu borom ne képp koo xamante ni gis nga bërëb bii yàlla suñu borom defal tawféex ci mën a dégg lu lay jariñ ak di ko jariñoo ba faw yàlla nañ sax ci dégg ndigal ak di jëfee ndigal yàlla ñu sax ci dégg ndigal yi sunu boroom yi di ko jëfee teg ko ci raye ko ci sunna sunnas muhammad sallallahu taala bi nga xamante ni maanaam moom la sunu ba wax nii képp koo xamante ni yaa ngi may fa di ma jaamu digtal naa la ko na nga koy topp ci lu mu wax ak lu muy jëf waaye di topp ndigalu gaa yu baax yi nga xamante ni ñoo topp ci ginnaaw yonent bi saasaam maanaam doon leeral abu sunnaam di leeral yoonam nit ñi gën see mën a jariñu muy ijmaax kon nag ki nga xamante ni moo nekk ca bopp ba nag ci mbooleem euh, ñoom ñëpp ñu tudd muy asnal xadim yàlla suñu borom defal tawféex ba ñu jekku ay ndigalam te di ko jëfe te di ci am ak ngërëmam ba faw barke borom Tuubaa kon nag ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni Mbàkke Kajoor a ngi nii ku ko gis yàlla na suñu borom faj say aajo faj suñuy aajo ba ba nga fay am tawféex ñëw fi te ñu yàlla bu buñ dañ di fi ñëw yàgg fee ñëw lool barke ba mu tax xasida yi barkeb sëñ taxa yàlla na fi yàgg lool tëwër sëñ Modou sëñ Amdi Modou Mbend Fall ak sunu kilifa yëpp barke ba mu tax xasida yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf.